alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. wasalaamu ala afdali rusuli sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima tahiyatan mubarakatan طيبة من عند الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته mbokk yi dajee ci rontan sama sëriñ yi sama doomi sëriñ si Mawlaay Cheikh Ibrahim Fall ak rakkam yi mbokk ak tur ak muqaddam yi barke yi ci ron jotaay bi sama mag yeeg sama waajur yi jigéen ñee góor ñi samay rakk ñi ma fekk jotaay bi maa ngi leen di sama rakk Cheikh Ibrahim Fall li ma fekk léegi buy tëj waxtaanam wu rafet bi mu def ci Cheikh Ahmed yi Chérif radiallahu taala anhu sama doom beneen côté Cheikh Ibrahim Fall woo ma téléphone wax ma dama ne bëgg naa ci jotaay bi nga teew ci noonu la ko defee woon daaw ma teew ci bu ma ko déggoon sax dama ciy teew dégg rek su ma romboon rek xam ne moom la ma teew ci danaa wax lu tax bi ma waxee ma teew ci mu teg ne ma damaa bëgg boo ci teewee ren nag dañoo bëgg nga sànni ay kàddu ma ne boobu dee diis fekk na boobu sama rakk ju ak sama xarit amoon jabar bi ko war a takkal ca Bambey mu dajale woon xaalis ba guru a jox ma ko waaye gannaaw daje maam Cheikh Ibrahima la ñemewuma koy wax ne ko danaa njëkk a dem Bambey door a ñëw ci jotaay bi loolu moom ci xeeti rep yi la moo tax ñemewu ma koy wax bi ma yàlla dimbalee nag loolee yëwén ma daw ñëw fekkee si dara dama doon xalaat yem ca buntu ba toog fa benn xale moo ma gis ko fee fa ba Cheikh Ibrahima Fall demil moom moo ma tax a ci biir ñu tegaat ci lii nag ne ma nañ ci sànni ay kaddu maa ngi wax mbokk yi ne leen kaddu yi du jëm ci ñaari conférence yi benn bi fekkeewu ma ko te suma mag al allaama Cheikh Ibrahima Thiam bàyyi nii moo ko def xam naa ko moom ka ca tegu sama rakk la Cheikh Ibrahima Fall moom itamit di borom xam-xam yaakaar naa ci géew ma yàgg koo déglu ci. ay rajo yi FM mu ciy waxtaan ak ci gàmmo yoo xam ne sax suñ ca tasee lu mel ni gàmmo sëñ Ahmad Ndiaye bu yàgg yàgg ma Cheikh Ahmadou Boucar ñu koy doxal ci guddi gu ne xam mu jot kooku tamit duma duggal ci loolu xam nga ci ku may waxtaane ki xaanga mag sem si sumuu fi wa badru tetimmati Mawlana Cheikh Ibrahima Fall kooku laay wax jox sëriñ bi dama baal sëriñ bi dama am ci moom ay masaahid Mawlana Cheikh Ibrahima Fall bàyyi yës dafa wax ne awris maqaam al anbiyaai wal awliyaai maan li zal ubaydi yow yàlla yan na nga donnaloo jàmm bi tudd Cheikh Ibrahima Niass maqaamaay yónnant yi ak wëlli yi yan na nga ko donnaloo su ma xale yi dal jàng bees dañuy foog ne bàyyi na dafay nekk tey Moussa suba yàlla toxal maqaama bu mu duxaat Ibrahima gannaaw suba mu doo Isa gannaawaat suba mu doo Yuusufa wala mu doo Yuunusa bàyyi ñaanul loolu waxut loolu bàyyi li mu wax mooy su ma topp mii topp ma ne ci Ibrahima ne su ma topp mi ci mi ma topp ne ci yónnent Yàlla Moussa ne su ma topp mii topp ma ne ci Abdul Qadir Jaylaani ne su ma topp ci topp na ma adee ci Abul Yazid al Bustami ne sama topp mi ci topp ne ci Muhammadul Ghazali borom Ihya nga nekk ci biir topp mi lëndiyaayu yi ak awliyaa yi la bàyyi wax ne nañ ñib si sama kër nañ fi dëkk si nañ bokk ci topp léegi nag yéen ñëpp imagine leen li ma bëgg wax waaye di dëkkoon kedde sëriñ bi bëgg ku ko toogal kursi wax ak mbokkam ma xam ko àddina bi léegi laa jot tudd tudd du ma tudd mbokkam waaye Cheikh Ibrahima Fall mi toog moom xam gi maay ne ko damaa bëgg nga dëkkal si ma kuusi mu ne ko defuma ko du ma ko def fi nga ne lay ne fi Quran bi nekk Medina Baye gii kaw ma gii lay ne du si kuusi yow na sa xel ka waxoon ne rabbana inni askantu min zurriyati bi waadin ghayri zi zarin inda baytikal muharram rabbana li yuqimu salata faj'al af'idatan min annaasi ta'wi ilayhim maam Ibra Fall moo ma moo ma firiloo maqaamaam wax ci këram ci yor yorab talaata ci Medina Baye Mouhamad Lamine Seck mu bàyyi ma xëy Seck ngi toog ci jotaay ba ne ma keroog bi ma bàyyi waxee ñëwoon koo si si bi am na ci sama mbokk yi ma wax ne doo ko naxaar ba nawet bi ma ne déedéet léegi lay ko bàyyi moo ko wax ne ba góob ba pare door a ñëw ne déedéet man léegi lay ñëw bu ma sëriñ bi waxee dara faaleetuma tool waaye mu ne bi ñu ñëwee dafa ne ko bi mu ko rëddalee kër gi ba pare daf na ko sëriñ mu ne ah mu ne ko bu ma fi kenn wullu ci kër gi bu ma fi kenn yërëm bu ma fi am njaboot buy wuuteeg yow loolu du may rabbal ay nii askan bi sëriñ mi sëriñ bi bi waa jël xayral si sare kale rab kale rabbul mu rabbi bi nga xam ne yu rabbi yu rabbil alamina wa jamial arwaax kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahima Fall ma ne moom moom rek moom rek moo am lu yéeme yéeme ci Mawlana Cheikh Ibrahima Fall ci Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu taala anhu beneen masab bi baay masab bi baay nekk ni ci moom maam ma jëm Fall soxna si bàyyi la dañ si bàyyi koo yàggul waaye ndox bi nga xamee ne sëtam si Ahmad Bukaari ku ne xam ne maam moom ñooy ànd suba ngoon te mooy wuy jur yaayam mooy wajur yaayam moom na bàyyi yaay lee yaayam loolu laa bëgg a wax fàttewu ma ne yaakaar ni fàlla ko jur seen na fi sax damaa toog moom ay yoon lii may nekk li ñuy wax naa ko ci kaw jumaa yi bàyyi ñax yi ci mbooloo moo xam ne sëriñ maamu na ñu toog ci biir jotaay bàyyi dafa toog maam ba jëm mu ne moo koy ataaya am soxna su ñëw ci soxnaay sëriñ bi jàmbatal bàyyi ne ko diw li ma wax xëy diw sëriñ bi nekk li ba pare bàyyi ne ko diw mun a mun a ko noppaleku. wax joo xam ne du ma la ko wax man déglu ko wax Fatou Diagne du ci loolu kooku mooy Maulana Cheikh Ibrahima Fall dégg ngeen fi ko bàyyi yóbbu wax joo xam ne man du ma ko wax Cheikh Ibrahima du ko soxna Fatou Diagne du la ko te ki koy nettali. su fekkoon ne soxnaay bàyyi man dañ leen a war dañu am wujj ma ne Mamba Jam Fall wujj la ndax soxna bàyyi la waaye bàyyi soxnaa ni ñoom dañuy am wujj ay mag ak rakk la ñu am loolu nag njàngat la ci jigéen ñi ci toog ci jotaay bi ñoom ñoom la ñu ma ne xoolal seede bi ki ki ma ko nettali soxna si bàyyi la ku ne xam na Mamba Jam ñu jege woon bàyyi lépp moo ko daan defal ci wàllu saa yi àddina yi ci jëflante yi mu ne bàyyi ne man duma ko wax Cheikh Ibrahima Fall du ko wax joo ne Cheikh Ibrahima Fall du ko wax man du ma ko wax Fatou Ndiaye da ko wax buñ la ko waxee lu la ci naqari mooy soxna si lu la ci naqari du ko wax man du ma wax Fatou Ndiaye du ko wax bàyyi loolu. li xew nii Cheikh Ibrahima Fall ci jamono dafa xew bu yàgg naar gànnaay yi fee nekk ba atam bi nga xamee ne maam Ousmane Ndiaye na fi date bi nag laa fàtte date bi maam Ousmane Ndiaye mu mag ma laa wax sëñ daal Ousmane Ndiaye alhamdulilah borom xam bu année bi mu fi bàyyi ko ca déwén sa Cheikh Mouhamadul Misri bu maata mulaana sërif bu mag boobu nga xam ne bàyyi wax na ko saani wujudi te loolu bëriwut ñu ngi ko wax bokk na ko wax moom dafa ñëw ci bàyyi ne ko dama la doon tàggu pour wër sa muqaddam yi waxtaan ak ñoom man daal damaa gis ne ñoom seen tekkeral bi ak seen ñàkk wax dara gii damaa xalaat ni ñun liñ xam ak suñu àgg ca xam-xam bi ñoom xamuñ ko. déglu li ma déglu li ma wax baax a baax bàyyi ne may naa leen ndigal wër leen li laaj li tax nag ma ne leen bi bàyyi alaaji Bamba Ousmane Ndiaye gaañoo ba ca déwén sa la ñoom waroon Cheikh Hassane Deme cee bokk te Cheikh Hassane Deme année bi sëñ Ousmane Ndiaye ci la ñëw ci bàyyi loolu tamit xale yi ñu ko yóbbaale sëñ Hassane Deme Cheikh Hassane Deme année bi bàyyi ma Ousmane Ndiaye gaañoo ci nekk ñëw nekk taalibe baay ci la dugg ci loxol Baye ba ba sañ ci lañ Medina lu yàgg yàgg yàgg misiri mu ne muy wër muqaddami ànd ay naar du moom kenn ànd ak ay muqaddami naar di wër a wër a wër a ba pare del si ci bàyyi bi ñaaw ñu woon dal seen yéemu lool ne bàyyi wër naa diw ah kooku de natt ko nangam wër naa diw natt ko nangam wër naa diw ah yow daal sa gars yi daal man daal lu tax ñu ne tekk jaaxal na ma ñi daal ay buxuur lañ ñu mel ci xam-xam kenn ba koo gis bàyyi na ko wër nga mu ne waaw mu ne ko dem nga ci ku ñooy wax Cheikh Ibrahima na ko àgguñ kooku ah am na mu ne ko kooku am na waaye misiri na ko waaye kooku am na waaye yegguñ ca waaw bu sëriñ bi toogee ma door a yegg wax boobu wax bi dafa am solo dafa baax ci ndaw yi dafa baax ci xale yi misiri na ko wër nañ ba sonn waaye àgguñ ci ci tudd Cheikh Ibrahima Fall li ma wax nii waxi bàyyi la ñi ñi jàng taari yi bari ci démb yi nag duñ xam li wax li moom mag ñee ko xam bàyyi ko ak ñett Cheikh Ibrahima Fall mu ne déedéet àgguma ca bàyyi na ko kun di alimta shay'an wa xaa wa xaaba anka asiyaa kun di alimta shay'an wa xaaba anka asiyaa su fekkee ne dem nga ci Ibrahima Fall demoo ci Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall àggoo ca moom mu ne ah ah kon de asiyaa rek nga xam ci gaañ kon de sa wër gi li muy bëri bëri ak gaañ gi li mu leen wër wër lenn rek nga xam asidaa la rek nga xam. mbir yi lu bëri bëri kon fàtt na la danaa ko Cheikh Ibrahima Fall misiri mu ne mu solaat dàllam fekki maa Ibra Fall kursi loolu nag mooy yoonoo mu njëkk gannaaw bu mu jàkkee ci bàyyi dem dema ji waaye dajeeg maa Ibra Fall moom ci jotaay keroo la moom kon bàyyi moo ko imlaa ne ko demal nga seeti Cheikh Ibrahima Fall moom fa la ñuy xamee asiyaa yi gaa yi sëy rek nga fa mën a xam ne ab daf rek nga fa mën a xam waaye boobu dee xam asiyaa yi da ngay fekk ma ne li xew léegi yàgg na fi ndeke naari gànnaar yi yàgg na ñoo foog ne ñun àgguñ ci maarif yeeg xadaraat yeeg euh, léegi dañoo foog ne dafa am duñ ci xam ak duñ ci xam misiri mi mi mi mu mag mi alxaariful zaani fi tariqati wal faydati moom la bàyyi wax ne ko soo waree muqaddam yi alimta shay'an asi mbir rek nga xam waxaaba anka shaw yëf mu bëree bëri réer na la mu dem Cheikh waaye bañ fa bàyyi ko woon mu jox ko loxo i sëriñ bi daal nekk lu ne def na bi ma ciy teg nag sëñ bi muy masat bu mujj bi mooy 1986 Mbaye Kabir Faye dafa gaañu Kabir Faye bi la gaañoo mu borob gannaaw it guddi guddi lay borob pour ñu leen dina xam ngay may wax maa ngi rafal ñëw ci xabru bi jàmbu bi tey daw dugg ci jumaa ji leen fa benn basan man maa daw dugg ci jumaa ji leen ko benn ba sax commande ko rek keroog nga xam ne lii maa ko def ma wax bi ma ñëwee def ko ci lal suuf si mun ma déedéet déedéet déedéet fii suuf si tàng bi la bu ko ci suuf si tàng bi la bul lal dara daal di toog ci suuf ma toog ci suuf waaye nag maam ful la déet nii dañ ko rotee ba ma gunge ko ak ñoom ma ko mu dagg lay lay lay yu ma bëgg a wax nag moo lii na dama daggaale ñu bëri seebu lay mu ne Ibrahima jege ma day asafura maa ko jegee ko maam ñaaral ma ba ma ko jegee mu ne ma xam xarit bu a baax ma ne ko ah mu ne ma Cheikh Ahmad Tidiane mu bàyyi ñes mooy alxalifatul xaali yàlla yàlla nii maanaam ah, mu ne ma moom ak lépp lu mu ci Kabir Faye dëggal mu ne ma xam nga wax na ne Kabir Faye xaagoon na ci maqaamaam su rombee bant mu tëdd mu ne ko jogal ñu ànd jaamu yàlla bant boobu loolu Cheikh Tidiane Niass wax seetaan ngeen YouTube yi dellu leen ci kaset yi ak band yi li ma wax nii ngeen fay fekk yéen Pape Cheikh dafa wax keroog ne sa nii xaagoon ah, na ci yàlla foo xam ne bu rombee bant bu wow su ne ko jogal ñu ànd jaamu yàlla bant bi dana jóg ànd ak moom ñu dem jaamu yàlla maa ngi ne ma Cheikh Tidiane Niass ni moo amul la de waaye lépp lu wax ci kabir dëgg la mu ne ma lépp lu wax ci kabir na ngeen xam ne dëgg la sëriñ sëriñ bi ma maa ngi guddal waaye nga baal ma rek ci lay tëjee li may wax bi mu ne ma lépp wax ci kabir dëgg la mu tegal ma ci ne ma maqaamam tasaruf la doon dund ci kabir te ba ma nee ñaari at ci bàyyi la ko mu ne ma góoba sax wóoruma ndax bàyyi tarbiya na ko wala bi billahi wallahi tallahi maa ngi rafetlu ma wax loolu mu ne ma bi mu rotee ci loxol bàyyi ca déwén sa laxaat yi ci maqaama bi Cheikh Tidiane doon junj tey biñ ko tegee ci penku jumaay mu ne ma te man sax boobu wóorul ma na Kabir bàyyi tarbiyaal na de bu leen fàtte ne Kabir maam Cheikh Omar Faye dafa dajale woon njabootam jëm may ko bàyyi bàyyi am ci ñun ci tànn téye am ca bàyyi ñii bi du Kabir rek ñëpp la leen mayoon mu ne ma ba mu ñëwee ca bàyyi ca déwén sa dëggul de kii xam sax bàyyi maqaama yi xat yi koy joxe ak dagg yi ma ca déwén sa laxaat ci maqaama moomu moomu kat biñ li ñooy tuddee tarbiya def na ko wala déet muy benn mu ne ma doom maanaam ah mu ne ma dama laa gis nga daw ak bëgg ma koo lalaal maanaam mu ne ma sëriñ bi dafa wax ne li ko tax a fonk suuf si yónnante yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mbagam Jibriilu dafa yàgg diriiku ca suuf sa moom Mikaayil mu ne ma su fekkee ñaari malaaka ñu diri seen suuf ci seen mbagg ci suuf la bàyyi da fonkee Madinatul Munawwara banaa u'assiru xaddi inda mamshaa Muhammadin kon Ibra mu war a def ak sëriñam keroog nag la ma wax ne ma keroog nag la ma wax ne ma turbatul ummira bi dardaasi Jibrila naa nii taala ma xam ne kii moom kenn jëlul koo jàng kenn jëlul a fekk yi ak xel yi keroog ma turbatul ma ne ah mu ne ummirat bi dardaasi Jibrila ma nii bi mu fi ko alaaji Abdoulaye Niass wax ne wax na ko ne ko man lépp lu sa baayee jàngale jàngale naa ko waaye sa baay fay lantinoor fay wax joo xam ne fay waa joo ne lantinoor bu koy déglu rek la soxla mooy man na danaan wax ma déglu sëriñ bi ni ngi balu xàq di gërëm sama rakk ci li ma ko fekk muy waxtaan mu rafet ñu def nii di nuyu sama mag Cheikh Aboubacar bi mu ngi ci taw nga xam ne moom alxaar ah, fi ma xamante Cheikh Ibrahima Fall laa ko tuddee moom dof la moom bu nit ñëfi doon xam Baye Fall wax alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah